ñaar ñoom bu doon santiment rek xam nga kon duñ dugg kaso bu doon santiment rek Ousmane Sonko du am parcours bi nga xamante ne moom la am ba fii mu yegg si fii nii donc aujourd'hui tey jii liñ ñuy wax yépp sa à il pour man il y a beaucoup trop de rétention d'informations mmh. et les Sénégalais dañu nekk dans l'attente d'avoir une information concernant ils veulent savoir lu bëri li nga xamante ne ni moom la Ousmane Sonko suñu premier ministre wax ñu ne dinaa leen ko wax loolu jotewul ak déclaration de politique générale dara de absolument dañ ne ñoom li ñu fekk ci kees gi mu njëkk def déclaration de sa pays est en ñu ne den na waaye mu defaat déclaration mhm. keroog bi muy dalal artistes yi ca primature mhm. du yàgg dara je vais faire bu ma defee sortie dinaa leen wax li nga xamante ne moom la ñuy jot a découvrir ci réew mi xoolal pëccëxoo bi xoolal tuq sa bënn bi bu saañ ba réer bi jëlal odia bi moo yey lii lii lii ay motion de censure xam nga xam nga xam nga aujourd'hui su fekkoonte ne cette rencontre bi ñuy xaar mhm. le premier ministre Ousmane Sonko def na ko sénégalais yi déjà dinañu gën a am lu leer par rapport ak ñoom ci ban lan mhm. yan loxo la ñu jëlee réew mi muy benn mhm. beneen ba ca topp mooy mais tous ces rapports yi nga xamante ne ñoo fi nekk aujourd'hui ils ont tout changé en passant par faire d'abord et assise de la justice assise de la justice yi jeex na maintenant il y des résolutions ak ay conclusions yoo xamante ne jëlee nañ ko fi waaye yéen taxawoon ngeen PJF yéen changé ngeen magistrature bi yéen nommé ngeen seen ay juge ba changé police bërki dee moom moo njaay waaye yéen luy seen problème ak commencé kam enquête yi kon enquête bu ñu ko commencé woon si tu veux ay responsabilité billahi maa la wax ne Nabukor am na ñu bëri ñoo xamante ne dootuñu tala toog di wax wala bu ñu wax yee dañoo dem toog ca taabulu attekaay ba pour justifier ba xam ndax ñoo jël wala jëluñu ci réew bi ce qui fait que cet état prend du temps à réagir et également l'opposition notamment waa benn Bokk Yaakaar en profite pour ah dérouler absolument loolu mooy dëgg Pape Ousmane Cissé Nabou waxuma leen fii ci biir matinal bii ne leen yéen suppression HCCT bii ak CSE bii assemblée nationale duñ ko voté fii laa leen ko waxe wax nga ko fii kay wallaahi waxaguma ci réew mi lu teggeeku fii parce que ñii dañuy dem ba finalement sénégalais yëpp a leen xam c'est-à-dire ils sont amuñu benn acte boo xamante ne dañ koy def nga ne ah ñii de wax dëgg yàlla bett nañ ma de surtout ma leen woon ils sont trop prévisibles je savais que suppression HCCT bi ak CEC bi duñ ko voté parce que xam nga lu tax dañu naan comme ñaaw na rek na gën a ñaaw. na ba noppi. Mhm. ñoom pare nañu dans tous les cas xam nañu ni. procédure mu yéex mu gaaw ils vont devoir rendre compte aux Sénégalais. ils n'ont plus rien à perdre. donc il faut de la politique te ñoom ils n'ont pas de temps boo xamante ne dañu koy gagner wala dañu koy perdre l'essentiel c'est de dérouler te ñoom ils déroulent tranquillement pourquoi on les laisse pourquoi ñu war leen a bàyyi fari ñu nekk ci réew mi di teggi stratégie di lalli di retarder le travail parce que aujourd'hui cette motion de censure là bu ñu ko dugalee qu'est-ce qui va se passer hmm. ñoom ñoo ëpp am majorité assemblée nationale la ñu defoon ca CSE bi HCCT bi la ñuy defaat donc aujourd'hui si le premier ministre perd son poste le président de la république dafay ñëw di reconduire aat rek c'est-à-dire et et et Ousmane son gouvernement parce na pendant ce temps on perd du temps. et pendant ce temps yoo xamante ne qui ont fait douze ans de règne dans ce pays au lieu ñu toog justifier fukki at ak ñaar yi nan lañ ko yoree ci réew mi ñuy ndaataat tallax parce que dañ leen a may boobu liberté loolu dafa war a jeex. gis nga gis nga xoolal gis nga tiitaange gi warul nekk ci ñun askan wi. nga yaakaar ne yàpp ñu mënta weesu. yow nga bëgg jël lépp politiser ko ci réew mi balaa maa nga ne c'est le gouvernement moom moo conduire à une situation politique je suis désolé le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sa vision le président Macky Sall a déroulé sa propre vision pendant douze ans te li ci échoué moo ëpp li mu ci gagné ñu dem biir assemblée nationale c'est des règlements de compte personnels yu ñu fay amal des débats vides de sens et c'est la vérité Absolument. am nañu aay de waaye ña ñuul ña fa ne ak ruubekat ya fa ne danoo muur borom xam-xam ya fa ne te lii du assemblée nationale mm-hmm. une assemblée nationale qui représente un pouvoir législatif toi tu n'es même pas censé fonctionner dans la légalité pendant des années mm. c'est maintenant que tu l'ouvres et pourtant ñi fi nekk it bëgg nañoo am majorité suñu demee ci ay élections législatives lan moo ko nar a uutale majorité bi ñuy wax mais changer également la façon de nommer noo députés il faut que ça change. Ah. tant que ñu ngi fonctionner nii en terme de liste politique ak euh, tête de liste ak xawma ñaata nu ñu koy calculer noonu. du ñu ci génn ko bëggee laa koy defee. il y a tellement de députés man député am na ci ñoo xam ne dama leen gis keroog ci tribune dama ne ah bon c'est des députés yi président Fatou ah, député koo xam ne a osé mooy baromètre bi pour ñu xam leen. non wala ñoo xamante eh, ni. un député est un représentant du peuple Pape Ousmane ah Cissé. un député député inconnu et député de qui. personne peuple. quel peuple. ah ah donc qui a choisi. qui a élu est-ce que c'est le peuple. le peuple non souvent c'est des calculs politiques. ñoo lay yóbbu ci ñu jox la siège bi nga xamante ne li nga may laaj nii yaa ko gën a xam yow da bëgg di wax loo nit ba mu màgg. fii fii lañ fal ay maire ak ay député yoo xam ne askan wi xamuñ mais du fi jeex. du fi xaaj est ce que ñàkk euh, erreur de askan loolu baromètre la pour wax ni ils sont nuls wala defuñu liggéey bi. non non non la nullité n'est pas par rapport n'est pas par rapport non non on ne parle on ne parle pas de. que ne xamuñu leen. non mais ça n'a ah. wax ni ça n'a la aujourd'hui li am ba des j'étais en train de parler de représentativité du député du peuple ça n'a rien à voir ak le fait d'avoir ñoom non seulement certains d'entre eux kenn xamu leen mais yokk ci ñu niveau ñàkk niveau mënul weesu yow tu es à l'Assemblée nationale pour parler de la suppression de deux institutions toi tu parles de débat et de confrontation politique d'Ousmane Sonko tu attaques une perce de toute façon ñoom Ousmane Sonko mosuñu ko sake duñu ko mës a sake ba abadan daa man dappat man si bëgg du bañ duñu ko sake léegi nag qu'est-ce qu'il faut faire oui. on doit avoir un état fort il faut activer les procédures d'enquête mm il faut que liggéey bi tàmbali il faut que jaabante bi ñun ñu koy gis nii mm-hmm. il faut que ku def ñu xam ne yaa def il faut que yëf yi xaw ah, yëngu ah, que les rangs se forment dès maintenant ngi dégg pour yow loolu moo la doon réponse <coughs> ah waaw hmm. bu ñu leen bàyyee ñii ñuy yaataa yumbe parce que ñoom ñu ngi déroulé de Pape Ousmane yow gisoo nañu ñu ngi déroulé. ñu ngi déroulé nice li ñu mu ngi ruube li ñu bëgg a ruube tranquillement et finalement oui normal na bu ñu ngi réussir ñoom li nga xamante ne loolu ñu bëgg a def et tu que moi en tant qu'État je vais laisser les choses se faire comme ça ba kañ yow tu tu annonces des sorties yoo xam ne dafa gokk ok on n'a pas fait de déclaration de politique générale mais bon mi lan la annoncez-nous des chiffres communiquez avec votre population ah ngir yàlla communiquez avec votre population allez dans le bon sens des choses activez les dossiers judiciaires ah, vraiment su ko defee léegi léegi rek léegi rek bu soobee yàlla pënd mi wuri léegi ñu xam bu bitir bitir yi féete mais yow bëgg nekk ci réew mi nii rek ah yow yaa ngi waaj ñoom ñu ngi doxal yow yaa ngi waaj ñoom ñu ngi doxal ça ne marche ça ne marche pas comme ça voilà des gens yoo xamante ne ne serait-ce que pendant une longue période waruñu woon tal dara lu dul ay travail d'audit c'est vrai quand ils ont eu le culot de nous sortir un livre blanc c'est que vraiment euh, la, euh, comment on appelle ça ne kii ne tue pas dans ce monde nu ñu koy waxatee dimbali ma passez-moi l'expression le ridicule ne tue pas sincèrement Cheikh Abdou Bara a raison de leur dire livre rouge peu importe iceberg bi nekk ci biir mais la vérité est que leur leur tache blanche là leur livre blanc est taché de rouge et c'est ça c'est ça la vérité boo ci boolee bu du rouge de sang du rouge de colère dans tous les cas rouge a ngi ci biir kon nag ñoom nii amuñu dara dara dara loo xamante ne war nañ ko mën a jaay sénégalais yi booy seetaan assemblée nationale da ngay xeeb sa bopp yow peuple absolument parce que tu te dis et voilà une assemblée bu fi nekk bu ñu leen falee ba tey c'est-à-dire c'est des gens non seulement qui ont fonctionné dans l'illégalité mm -hmm. parce que bi ñu defaree seen règlement intérieur bi yàggul ci koo xam ne yaa war a voter ay loi nga fonctionner dans l'illégalité looloo gën a garaaw beneen ba ca topp li la maas wax ne moo am assemblée te am na lu mu bàyyi te ba léegi pratique yooyu mooy continuer c'est-à-dire que man dama defoon bu ñu wàccee ñàkkee pouvoir sax napp bu ñu poser une question aussi sérieuse que dinañu jël hmm. au moins sax hmm. comprendre ne yoratuñu nguur mais ñii se comporte comme si en fait. comme ñoo yor nguur gi. ñoo yor nguur bi benn. te même bu nu ko ñàkkee lu nu saf la nuy def. parce que assemblée nationale bi ñun ñoo fa ëpp. donc yow euh, dafa war a jeex cette assemblée ko war a dissoudre après une fois que cette assemblée est dissoute la suite. lan qu'on organise ah. des primaires ah. que qu'on change la façon de choisir les députés mu doon député yoo xamante ne askan wee leen di tànn et pas une liste politique. parce que xam nga lan la assemblée nationale bii di ñëw man dama cee bëgg ay député yoo xam ne. Mm. même bu fekkente ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le plus jeune président même bu fekkente ne il est le plus beau. même bu fekkente ne askan wi ñëpp a ko bokkandoo tànn bu dugalee assemblée nationale loi boo xam ne arrangé wul le peuple. ñu ne ko mm. président ah. lii duñ ko voté. absolument ah. pour l'intérêt amul politique amul tous ñebe muy. budd budd loolu par force la war a nekk. oui des députés du peuple sénégalais. mais des députés du peuple c'est de bu fekkee moom am majorité moo ñu jural li ñu dal yëpp Sénégal boobu ba tey Macky Sall la nekk fi di ndaataatal lax def lu ko saf fukki at ak ñaar ba dem waaye moom ba muy dem it kenn gunge ko te kenn neewu ko au revoir te ba muy dem mu ngi fi bàyyi ñi nga xamante ne war na lijjanti seen bopp. fi sax de. kon nag am na loo xam ne nabu am réew mënu continuer di fonctionner noonu. pour man il doit y avoir des primaires pour moi le peuple doit choisir ses députés par voie élective ñu comprendre ne lii tànneef bu segg bu sérieux la assemblée nationale ña fa nekk danoo war a amub xam-xam bu nu amub xam-xam ñu gëstu ji xam-xam munoo ñëw plénière boo xam ne yow tu t'es pas préparé yow da nga ñëw rek mosóor toog tribune évidemment que doo am contenu ci li ngay wax dañ ko xàmmee dañoo xàmmee mooy lan c'est que Nabou xam nga lu ma jaaxal je suis désolé ñi fàtt nañu